une sentiment de désolation parce que ku gis li xew Sénégal euh, donc depuis le premier ba le donc dafa doon loo xam ne bokkul ci ñun képp kuy parent rek laa wax kuy waajur aussi jaaxle nga ci li nga xam ne gis nañ ko. donc ñun vraiment dañuy condamner violence sur sur toutes ses parce que yaakaar naa ne aussi liy yàqu bare na et que tey Sénégal soxlawul loolu. lu ñu mën a jàngal rek mooy que tey jii ce qu'on constate plus ñuy dem mooy que tey peuple sénégalais politiciens yi tey dañ ko jël en otage et loolu tey war nañ ci wax ba nga xam ne euh, tension boobu ak li nga xam ne nit ñi ñu ngi koy dund mu wàññeeku mu disparaître sax laay wax et que euh, ce sont des événements malheureux et qu'on le pas aussi les responsabilités aussi son partagées mais que tey ñun lu ñu gëm ba gëm mooy que tey il faut aujourd'hui un discours d'apaisement un discours boo xam ne tey dafay génn Sénégal ci impasse bi ñu nekk je crois que loolu tey mooy euh, li nga xam ne war nañ ko sens bi ñu war a demee daal. li xew nii ndax bett na leen yéen a ko doon xaar. mais on a toujours alerté on a toujours alerté ça fait des années que ñu ngi alerté si situation boo xam ne tey bu ñu deful ndànk dinañ te jëm yàgg nañ ko wax parce que aussi une démocratie dafay respirer une démocratie dafa am ay principes yoo xam ne ñoo ko tant que ñu ngi salfaañe yooyu principe rek à fois danger day am. pour que incompréhension am bu incompréhension amee rek xoo mën na am. loolu yàgg nañ ko wax. je crois que bu ñu nekkee ci système démocratique ñu am constitution boo xam ne moo ñu tënk euh, dañ ko war a sàmm te kii ko war a njëkk sàmm nag mooy ki nga xam ne moo ñu jiitee ñu jox ko réew mi jox ko pouvoir kooku mooy le garant de la constitution. moo ci war a veiller mais tey dañu seetlu ne. Euh, depuis fort longtemps tey droit civique yi nga xam ne citoyen am nañ ko droit civique yi nga xam ne ñi nga xam ne bëgg nañu wuutu président de la République pour jot réew mi am nañ ko gis nañ ne droit yu ci bari tey ñu ngi koy salfaañe et loolu dafay indi ay dérives yoo xam ne dañuy dem ba benn moment du arranger kenn te kenn du ko maîtriser ñaan yàlla buñ fa àgg parce que tey rien n'est trop tard. Mm-hmm. aujourd'hui on peut sauver cette situation qui n'est pas voilà du lu bees et que dans mm-hmm. une démocratie des tensions politiques aussi dans les pays on les observe mais il faut qu'on ait cette grandeur et cette maturité quand même de surpasser cela et que de se concentrer sur l'essentiel njiit yi ñu def dëgg wax dëgg bu boobaa yaakaar naa ne eh, jàmm rek mooy am